doon jullee ci Ziguinchor euh, mais gis nañu Ousmane Sonko bu xaw a jullee tuuti son son jus bi bissap parce que euh, gis nañ ni euh, xaw na <laughs> xaw na woote jàmm nañu négocier nañu waxtaan ndax jàmm ñaar ko seeq tamit sa discours boobu tey changé na par rapport ak Sonko bi ñu xamoon na jamono yee ñu weesu ginnaaw bi mu defee bi mu lëloo lan moo xew ci diggante bi ba discours bi changé. Ousmane Sonko pour man changé wul discours li mu wax la mos wax. mooy waxtaan ñaare koy séq te waxtaan sax soxlawul muy am kiy dóor ñaata yoon laa toog fii wax ko kiy dóor nañ ko wax mu bàyyi li muy dóor kiy tooñ aussi dafa war a bàyyi di tooñ tooñul <laughs> c'est que le problème mooy tooñul. kii tooñ aussi. bu fekkee da nga nekk di tooñ te bu la dóoree nga yuuxu attends mais il faut ah. tooñ bi lan wax ba exemple si tooñ. bi kat passé wul à chaque fois ngeen di attaqué attaqué Macky Sall di attaqué eh, ay nitam te bu fekkente ni tey eh, wax ngeen ba jàll baat comme moom président de la république la eh, su yat bi dalee seen kaw rek ngeen yuuxu. loolu 2011 2011 moom li mu waxoon Ablaye Wade li mu ko daan wax ñun wax nañ lu toll noonu tey. non mais nag wax fi woon Ablaye référendum. non mais dama lay aussi. góor gi dee na euh, suul leen loolu loolu loolu loolu waa Y en a marre. ñoo ko doon wax Y en a Y en a marre dañ lay la. Mhm. waxu ko fi dama laaj. Mhm. ñun foofu. dañu lay fekk ci palais bi délogé la boo buggee def troisième mandat. Mhm. il a dit que jàpp nañ ci benn nit. ko wax ay nit di ko répété est-ce que jàpp nañ ci benn nit loolu tax ma la loolu politique la di wax. président waroo def troisième mandat nàngam nangam loolu politique la mais justice bi ci dugg di jàpp ay nit loolu laa ni dóor la saa à jox naa la yar pour nga fexe ba aar ma ngay jël yar boobu pour nga aar ma nga ma ciy dóor di ci dóor sama population loolu mooy problème bi ñii nga xam ne dañu nekk kaso président Macky Sall dañ ko joxoon pour mu aar leen. Mm. te defuñu lu tax ñu dem kaso. ñi nga xam ni dañu rax ci biir ñoom ñoo créer condition yi tax. ñoo ñu rax ci biir bu fekkoon ni. encadré nañu normalement manifestation yi di ko autorisé kenn kenn du rax ci biir bay toj Auchan kenn du rax ci biir bay toj Total ñiy rax ci biir ñoom ñoo ko créé également parce que seen ay jeunes la ñu nga xam ni. mais ñuy toj Auchan yéen yéen ak seen discours bi ngeen wax. discours anti français bi ngeen di wax ne français yi ñoom ñooy jël tey bu ngeen amul liggéey français parce que français yi ñoom euh, ñoom moom Auchan moom ñoom Total xale yi tamit dañuy jàpp ne. li leen li leen leen ko teg. discours boobu ça date pas d'aujourd'hui. depuis mais mais nag da ngeen a ñëw gën koo gën koo. gën koo gën a am taxawaay ci discours boobu. da ngay euh, ñoom yëpp ñëw ci bokk ci yéen. da ngay wax ni tamit. mooy tax da ngay wax ne ak yooyu amul woon les réseaux sociaux monde bi ubbeeku. Mhm. léegi monde bi dafa ubbeeku ba nga xam ni jeunes yi ils sont capables de prendre leur portable. Mhm. ñu xam lan moo xew. boo duggee ci portable yi. Mhm. ci réseaux sociaux yi dinañ la wax ni. tous les pays qui ont été colonisés par la France amul kenn ku ci développé. mais loolu jeunes yi dañ koy gis. loolu soxla Ousmane Sonko di ko wax. léegi nag loolu mooy indi la haine te haine boobu. ñoom ñoo ko gën a yokk mooy lan mooy bu fekkee yow toog nga ci nguur da nga war a réviser sa diggante ak France ni ngeen di jëflante ñun rejeté wuñu France nous ne rejetons pas la France nous voulons rejeter nous voulons rejeter la manière de procéder non non non nous n'avons jamais lan moo xew ci diggante rejeté la France nous n'avons jamais rejeté la coopération internationale on sait que cela fait partie de ce qui doit faire avancer un pays ce que nous ne voulons pas c'est des relations tactiques où il y a un gagnant et un perdant nous voulons des relations stratégiques où les deux peuvent gagner différemment c'est ça que nous avons toujours voulu et c'est ça qui arrange la France c'est ça qui arrange la coopération internationale loolu mooy problème bi. d' accord mais mais mais nag léegi moom wàññi ngeen discours bi ah par rapport ak ni ngeen ko amoon ci France lan moo xew ci diggante bi gis na ni Ousmane Sonko eh, discours bi wàcc na gis na ni mi ngi l'ambition ak waa France. ñu koy envoyé ay ñuy waxtaan ak ñoom en catimini eh, lan moo xew tamit. qu' est ce que vous croyez. ah lan moo xew. vous croyez que le Sénégal est un pays fermé. xam nga loolu cest à loolu ngeen loolu ngeen gëm ngeen doon waxee ngeen doon waxee loolu ngeen doon wax ah sénégalais le Sénégal au sénégalais loolu ay nit France dégage ah. di ko di ko di ko gëmloo hmm. extérieur hmm. man yàgg naa wax ni man li ma gëm mooy coopération internationale hmm. ouverture ouverture boobu usman Sonko yàgg na ko prôné mais dafa ni relation bi Sénégal di am ak France dañ ko war a réviser parce que Sénégal mooy perdant toujours France mooy gagnant te Sénégal bu ko France dimbalee ñu am ay relation France Sénégal mun na dem ba développer. Mmh. te France foofu lay ëpp bénéfice ci Sénégal ndax. jëflanteeg ku développé moo ëpp solo fuuf jëflanteeg ku nga xam ne amul dara. loolu moom la Ousmane Sonko moo sa wax. ñii nag ñoom bu ñu continuer ñii ñu def Sénégal day gën a dellu ginnaaw France di gën a am loolu la ñu bëgg réviser. te loolu la ñu mos a wax donc changé wu ñu discours maintenant la France a compris parce que dafa am ñu demoon di jaxase seen xel naan leen Ousmane Sonko c'est un terroriste Ousmane Sonko c'est un salafiste Ousmane Sonko léegi nag loolu la ñu dindi ñun. ba France yeewu. ba opinion internationale réyeeru ba ay député France taxaw ni képp ku opposé wu ci Macky Sall mu ragal la il te de terroriste kon léegi ñun suñu objectif atteindre nañ ko te loolu communication moo ko waral communication boobu kenn mënuñu ko tere te moom la ñuy def on n'a jamais changé de discours on a toujours été constant te constance boobu ci la ñu xam ci loolu la ñuy deewee te nag Ousmane Sonko wax na ko. bés bu ñu wóoloo du wax ci benn média français euh, yooyu yëpp après tamit ngeen ravalé waat yooyu yëpp. ngeen wax tamit mais nan mu ne ni doo wax ci média français. cest des de communication. non non du ñu wax ci média français. dañ ñu wax ci yenn média yu nga xam ni dañu far. fu ci mel ne France 24. mais média français. fu ci mel ne France 24 fu ci mel ne. Jeune Afrique après gis nañu ñu defal ngeen ay interview. mais mais France 24 mën nañu am position tey. Mhm. ëllëg ñu changer position. danañ leen ciy topp ah. bu ko defee ñun ñu ñëw wax ak ñoom. Mhm. mais bu ñu amee yenn position yi. mën nañ ne du ñu wax ak ñoom. Mhm. loolu c'est extrêmement important léegi RTS bii ngay gis. mais est-ce que mës nga gis ñu invité ba Birame Khoudialo. non mais bu ñu demee ba ci kanam. Sonko jël nguur gi. Mm. mais di nga gis ñu invité fa Biram ko jël loolu mooy problème bi c'est-à-dire au fond. ça loolu ngeen di promettre ah. non c'est l'évolution ah, c'est l'évolution de la situation. Mm-hmm. aujourd'hui ñun bu ñu toogee rupture bi nga xam ne président Macky Sall daf ko diggee woon te mënu ko. Mm-hmm. lu tax mënu ko mooy fa mu nàmpe. dafa nàmpe fu nga xam ni commission marché surfacturation partage de privilèges et de prébende rek la ñuy def. Mm-hmm. léegi mënul ñëw rek am rupture. donc sikkuma ko ci loolu waaye ñi may sikk mooy ñi ko wër di wax daan defal troisième mandat defal lii tëjal kii. di jàpp nit naan bu doon man la dama koy jël cinq di du matin tëj ko. moom la Idrissa Seck moom digal na ma Macky Sall waaye li xew mooy jëloon nañ ko denc ko. xal wu tàng jër la sànni ko loolu moo am. Mm. donc ñoom li ñu bëggoon def def nañ ko. ba pare ma yokk ci ni Ousmane Sonko nekkul nit ki nga xam ni dañu koy làpp ndax dégg naa dama koy làpp ba mu nooy. Mm. dégg naa wax jooju. mais ñoom la ñuy làpp ñoom ñoom la Ablaye Wade doon làpp ci kaso bi. Mm. population bi croiser les bras di leen xool. ñu jël Ousmane Sonko bëgg ka làpp population bi taxaw loolu dafa leen metti nag. ak leen metti waaye nañu xam ni Ousmane Sonko la mu wan population bi. Mm. moom la ñu wanul population bi ñoom moo tax population bi taxaw ci wetu Ousmane Sonko loolu leen metti la mais loolu nañ ko laaj suñu borom parce que nañu jub nit ki boo jubee nit ñi topp la. Mm. bu fekkee juboo kenn du la topp ku jubul kenn du ko topp. te ñoom li ñuy def du jub. merci Birame Khoudia Lo en tout cas waxtaan bi neex na am na solo tàng na nag mais eh, émission bi moo demee noonu mais débat public la il faut mu il faut mu <laughs> il faut mu tàng non c'est comme ça man loolu laa bëgg je veux waxuma la yow mais munoon nga teg juróom juróomi journaliste ñuy poser ay questions yu nga xam ne tout est contradictoire mm. si laay gën a mën a wax parce que ça permet d'expliquer aux Sénégalais mm-hmm. nan la demee parce ni ngay waxee nii mm-hmm. du yow mm-hmm. da ngay ay questions yu nga xam ne am na Sénégalais yu nga xam ne dañ koy poser wu si seen bopp léegi yow boo bëgg a poser kon taxaw nga place su Sénégalais yooyu bu ko répondre kon répondre naa pour Sénégalais yëpp émission noonu lay deme je vous remercie véritablement maa ngi nuyu Ousmane Sonko di ko